balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñu ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañu jaayi Sénégalais yi. kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la di ci weral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy nawle lañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib si mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dieye anam yi ma bëgg a mooy li jiitu élection bi lu bari xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ni tegul ci yoon conseil constitutionnel nee na sur la base de la commune renommée moom dégg na ñu ne condamnation am na transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article L41 du code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor indi ñu dakaar pour mun ko rajji te loolu respecté wuñu te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur commande li ci nekk yépp xam nañ ko donc su amoon kenn ku war a contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placer ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profitoo ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen ak leneen lu ci laxasu yenn saay ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si ne conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amagul ci ay preuve bu mu moom. ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption la ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéeyam jarul jaajëf waaye comme tàmmalam nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demander tey conseil constitutionnel te di ko demande président makki Sall ndax il faut encore rendre ndax ki mu defoon candidat te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état bi yépp tegu sa loxo te lépp ay mallette rek ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam de nekkoon ak moom xewuñu ko kon nañu gën a takk suñu ndigg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu def moins de soixante pour cent incha allah waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fagaw na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi di daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur de ne ñëpp jëli seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg def te mu jig ñu mooy dem voter massivement mais sécuriser la vote également te loolu ndaw ñi rekk ko ko mën voter ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yendu fa ba ngoon ku ñëw bëgg a def naka sa noonu ngeen digaale kook moom ba ñu dépouiller ba signer PV ba envoyé quartier général ñëpp am seeni PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def nu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi it affaire bi jaxasoo demam du yomb ko mu xam ko moom xam na si dee bëgg pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ki gañe ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ne lii la yàlla ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi su amee ku waroon contesté man lii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy jàll Cheikh Tidiane Dièye jàll kon sama jëmm amatul solo bu ñu bu ñu ñëw jàpp ci liggéey ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te it may dalal xelu ñëpp ñi dañu ne woon amul lu ñu tontu ci réew mi léegi daal il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañ ko kon xamoon nañu xew ci dëkk bi di ko suivre comme ñëpp te loolu doon suivre dëkk bi yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono bu ñu toll boo xam ne tànn am wala dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla natt woon nañu ñu jiite ko ak ñu ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li bëgg waaye ku am seetlu tuuti di nga xam ni à partir de du mois de mars 2020 trois am na lu bëri lu soppiku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom lu ma koy jël ci te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci fatxu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu Xudaybiya ndax xam ngeen Xudaybiya jamono jii Makka fitna la woon mënatul nekk bu gàddaay dem Madina Madina métti la woon xare yi am yépp ci Madina la ame ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëleem ma fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox gu ñuy wax Xudaybiya yéefar yi takk arme ne leen su ngeen duggee ñu faagaagal leen mu nangu signé pacte boo xam ne moo ko jural 10 ans bi mu defaru ci defar ci armeem defar ci société ba keroog bi mu jubloo ci Makka mu ngi woon ci jiite armee bu mat 10 mille personnes te guerre amul fim mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre. mu des nag élection bii di fatu Makka bu soobee yàlla buñ ci paree muy nu ñuy gérer ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll. léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y pas de vengeance il y de la justice parce que loolu lañ ñu jàngal dafa am loo xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàkk neew nag ni impunité totale dina am waaye kii defoon na ma lii faw ma fayu du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi topp di daw ci mbedd mi elles seront très exigeantes avec moom te ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañ ay at ci kaso bi ñoo ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mus a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ma ne il faut ñu report élection bi ndax yow ak diw yi fa ngeen bokk ma leen sama bokkub élection mënul justifier report élection sama bokk ci élection mënul justifier report élection gaw ma ni senegal ba mu daj am na ku ma gën a mérité nekk candidat man nii waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam ku ko xamul rek da sonn bontu bi président xam nga la wax madame yéen ñi dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëwu kenn saa su jotee rek di ko ne kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ ko dem naa ba ne samay avocat bu leen déposer recours mooy rabat bi tant que figé wuñu list yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d'enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye mii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy mii ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a te fi ko bëgg a jaare xam naa ko dama bëgg nga wootee anciens amis bi PDS nga ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus tard mu waa mu jot ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb bi ma taalee télé dégg ñu ne doyen Habib dafa bëgg a déposer rapport ci laa ko woo ne ko doyen bul déposer recours parce que bëgguma ñu jaar foofu peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité à agir mais yow candidat nga boo déposé ñu ne tu qualité à agir kon bul déposer recours dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa bu mu démissionné mukk ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ji bëri na Sénégal nag moo ni demee wax ci bëri na da ngay gis ku la xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy senegal nit nag boo ko wóoloo dangay def ni Aboubacar defoon biñ ko ne sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saaba yëpp commencé dute moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg la waaye nit booy wóolu tant yaa ngi koy gis ñàkk koo gis mu ne jaaral nii nga ne non non non kooku dafay juum li mu wax tegu ko fen fi ñu jaar ba egsi fii li may wax nii am na écart bu am suñu diggante et c'est tout mooy Pastef dañ ko songu pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñun gisuñu woon lu dul xeex ak défendre bu ñu ko def googu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai parce que mënu woon jox ko kenn bu ma ci jum ci benn rek projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te jumuñu ci benn defe kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce toll nañoon foo xam ne ñenn ñi élection rek la gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo songu métital ñu nangu ñu lu bari si ñun lu mu mën a def ba delloo si li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo suñu parti politique ñu doon wax ex Pastef léegi nañ ne Pastef dellu si na wala dellu si tey delloosi si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii te am nañu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici 2039 Sonko du candidat yàlla ne savay mbir noppi na ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffraient dans les ñi doon wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui vous garantit c'est que dinañu gagné waaw par extraordinaire suñu gañewul woon xam ngeen ni ku fi njëkk a toog la ma def mooy liggéey bi gars yi sumboon mu yeggali ko kon maag Basirou mii 10 ans ñu jël loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bu soobee yàlla peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma fa jox suite chambre salon double climatiseur télévision ñi fa ñëw gis nañu ma am sama ngandim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen di président Diomaye bi pendant 11 ans onze mois 9 mètres carrés la ne woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen conditions yi mu nekkee woon jooyu ko fen mais est-ce que est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn ku ñu fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison bi suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prox ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey dinañ ko def moo tax nit boo àndeek moom léeg danga da nga koy wóolu doylu ko buy def xamoo teyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko muy deuxième poñ boo xam ne discuter nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def non-lieu nit ñi ñibbi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie la ñu bëgg mais suñ defee loi ndam si ça nous waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpeller leen ministre de justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen tig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll na moo ñu àndi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloog sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen ava évolué na ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu jaloog loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la naka lañuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nga ñu xamee gisuñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yépp di wax ni te li ma wax nii yépp nag saa suñ ñëwaan ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan indil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog 3 heures de temps 4 heures de temps je lui fais un compte amul lenn lu ba mus a def te waxuma ko ko amul bu ko waxee ba noppi. mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee la ca des léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla dese lu ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bari dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko boy xajul fii de waaye dinañ ci yegg si ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gañe incha allah bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futti futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewoo jee Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencer campagne bi may lancer appel nag sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye na ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si ñu leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax munoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu ngi desee la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg ni nit def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné la ñu bëgg d'abord. kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen lépp ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp laa maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñe dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu mën a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp li daan am ci mit campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi li tax def lii mer naa gedd naa li tax ñëwuñu sama dëkk li tax wàccuñu nuyu kilifa gi suñu amoon sañ sañ goo lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek li mënul nekk rek nañ ñu ko nangu te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk ndigg yi parce que avenir u la du affaire u nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on de combat Macky Sall keroog bi mu ne man dootu nekkatuma candidat la ñu pareeg moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Ba bu yàlla ñàkkee bëgg senegal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou Ba wallaahi yéen xam leen Ba sénégalais question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mënee yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliardu Amadou Ba yi jóge est-ce que sénégalais dañuy posé question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii moolu lu mën a nekk président réew savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du sénégalais déedéet sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité sénégalais rek gënuma koo nekk sénégalais te it ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricain lañu ay sénégalais ngi dund feneen ñeneen a ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñu ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt nañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est-ce am na compétence yi te nag première naa ci ba noppi ñaareel bi mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew am na ci seen am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon specialement mu ngi wër nag di wax yor làmmiñam di wax nee na ñun lay attaqué bukki nag bu yabee waxambaane Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf am na fa jiite na direction générale des impôts mayor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko bugg ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow moom xam na assemblée nationale ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may dee ñu ne compétence compétence su lan expérience expérience su lan randal alalu réew mi kon may lancé aussi un appel kilifa diine parce que li ñuy wër di nga nga dem ci même bi rek la ñuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mi ngi en danger dañ ñoo rax pa ana ñan ñoo leen rax ñun ñi neewoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu sànni ñu ci biti ab terroriste di nga ko génne nii ana ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxu picc yooyu ñu def man tey moom la ñu jël bu koo def ci joomaay manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tappale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communiqué bi nga xam ne ñaari président yi génne woon nañ ko du le fekk ñu wax nañu def li nañu def li mais la fekk ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord sénégalais yëpp jóg sénégalais yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gannaaw di leen financé ak ay terrorisme ak yooyu nañu respecté Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci yenn yi il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats nag kon nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grande danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp na ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky parce que responsabilité bi ñu bi ñu bëgg a def ñu pour ngoonu élection bi ñu gaawantu ne gagné nañu à tel score gars yi génne FDS yi ñu ne parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité am la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu la lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ne mën na koo jaar ba dégg monsieur le président de la république qu'on va faire un, bi incha allah dañ koy gagné di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est au premier tour man laa gëm daaneel sama de ma daanele waaw merci beaucoup ma daanele fi war a daanele ndax damay bàyyi président wa damay daanele mooy daal xam ngeen affaire politique léeg-léeg kenn ku nekk ci ñun dina am ay seytaanem muy sa xalaat ay xeet fume la donc nga nekk situation yoo xam ne way est-ce que wóor kenn du ko dénkaane ndangam li ñu di ñëw di wax li ma def man mënoon na tombe ci biram Souleye Diop wala ci Abbas Fall mi wala ci Maimouna Diop wala ci Cheikh Tidiane Diop wala ci keneen Habib Sy mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu jot ñëw ma seedeel ko ni de mission à son âge c'est que dafa sax ma seet si waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu nattuñu amuñu candidat passif man mais bu soobee koy defee boobu ba léegi saa su ma buggee dara ci moom su ma ko ne léeg mag fuuf mën na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko noonu c'est un ma seedeel ko ko fii noonee laa koy seedelee docteur Cheikh Tidiane bi nga xam ne candidat la moom démb rek maa koy seetaan di bu ma seetaanee Ibrahima mu dem te ngeen di jiital son premier temps dafa régler problème mu temps d'antenne mi kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay na Mbodj mii mënoon na nekk candidate Guirassy su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo ba ma koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy joomaay du waxantu du waxantu waaye joomaay mooy sonko it du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant denier fois bi parce que démb it ñoo ne woon ba ndogondoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di génn ma ne ko saa yi demal defari sa bagage te nga defar sa sikkim bi nag alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñuy waxtaan ci yi nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallahi politique soo waroon dox sama diggante ak yow ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yawmi ma la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon booy dama bàyyi bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne jomaay comme bëriwul wax ni man nag joomaay su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom <laughs> loolu nag tiital na gaaya waaye mu wax ma bëgg a seede ni joomaay gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama reetaan ju bari jii li mu lekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ joomaay dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Biram Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii billaahi bu ñu jëlee affaire bi jomaay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen indi leen ma jomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaar ma seetluwaat ko ma ne ko jomaay ñii il lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu kon loolu muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteek moom waaye di wax askan wit ni tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek li mu teel visite mu ne ma président man dama am kersa ci nit di ñëw di wax ma ne ko du ma la déglu waaye ku mën a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xel gisaguma ko loolu ci mbindam la bi may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaatee sénégalais yi Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a wax ji bëri moom dina ci leeral waaye nag doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye juróom vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc di pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix lañu am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi mu ne nii sonn na bu sonn yem ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président ndax boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 la ñu def seen réforme ne c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que ñun dañu resté ci c'est le gouvernement qui coordonne et exécute moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbboo mu takk bagage la kon ñaar mun na am soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boore ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice président bi daanaka il est là pour la suppléance au et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera nommé mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ni nag ci mandat bi probablement ah président Diomaye di mooy décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel bi ma bëgg a daanelee mooy mbirum koppar question franc fa Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées même par le candidat, n'ont pas pu être intégrés sur cette je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions, que j'ai présenté publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je dans les détails techniques. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UOMA. E ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons de booster et aller vers les réformes Mais nous avons toujours dit que nous, notre option, c'était même la CDAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, Vous savez bien qu'un détenu le programme a, a, une ou deux fois, mais on n'a avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire programme comme une continuité. Quand je demandais à de démarrer le programme, je leur ai sur la base, l'ossature de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est parce que des en manque de programme et nous reprocher essaie de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'il ne s'adresse pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française. Je laisse à, à notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie.